su ko ñàkk waxtaan ndax du jaas lu dul jaas nag kon nit ki war na koo xam xam la ci aju te mbirum diggante jaam bi ak mu boroom bi di ko digal muy def di ko tere muy bàyyi muy am néew kon atte yi ci aju yépp ak teggeen yi atte yooyu war a àndal fas yéene toftalee bu soobu yàlla kon tàmbale ci ni mbokk yi faatu mënta ñàkk doonte nit ñépp ko gëm ci séen ci xam ne mënta ñàkk waaye léeg-léeg na nga gis ñuy dox doxin woo xam ne daa mel ni jàppuñ ne faatoo ñëw ndax ku gëm ne faatu dana ñëw te faatu du du mujjug mbir yi wàccuwaay la ci wàccuwaay yi gëm loolu dëgg-dëgg gëm da ko waajal di ko bàyyi xel ci sa dund ginnaaw borom bi nee na kullu nafsin daa'iqatul mawt bakkan bu ne dana faatu wala boog mën nañoo wax ne aw ñam la woo xam ne gimiñ gune dana ko mos am ko waxoon ne faatu it buntu kër la boo xam ne nit ku ne dana ci tàbbi lijjanti nag lay xew boo duggee ci kër ga foo jëm néeg ya fa nekk ban néeg nga ci jëm almawtu baabun wa kullu nnaasi daaxiluhu muy loo xam ne it nag almawtu yati baxtatan wal xabru sunduqul amal kon lu ñu war a waajal la lu ñu war di bàyyi xel la ci sunu tund di ko bàyyi xel ci sunu jëflante moo taxoon yonent bi salaam daan sax di soññ nit ñi ci lépp luy tax duñ fàtte dee bokk na ci ak firu ذكرى هادم اللذات الموت bari leen yéen jullit ñi bari leen di tudd dee mi nga xam ne mooy mabbukatu bànneex yi bànneex yi bu dikkee tàggale nit ñëpp seen bànneex ki faatu tàggoog bànneexam ay bokkam tàggoog seen bànneex ay xamee ay xameem ak i xare tamit tàggoog seen bànneex kon dee leen ko fàttali ba bu mu leen bett Euh, imaamu ali it waxoon ne bokk na ci taqwa yi nga xam ne mooy bàyyi xel yàlla yi ko yi ko yiñ boole taqwa am di bàyyi xel faatu ci la bokk te daa waxoon ne ragal yàlla mu màgg mi jëfa ndigal yàlla yi ci alxuraan ak sunna doyloo loolu yàlla jox ak waajal bis bi ngay génn àdduna التقوى لغني هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل kon gaañu baax ñépp yàgg nañoo soññee yàgg a woote ci ne nit ñi nañuy fàttaliku dee bokk na ci liy firndeel loolu yi doy salaam nee na tere woon naa leen ngeen di siyaare ji armel waaye dee leen ko siyaare ji joxoon naa leen ci digal ndax lan day fàttalee àllaaxira kon jullit bu ne mbokk yi war na teewlu ne bis a ngi ci bis yi ci la ak ruuxam di tàggale ko jëm te nag fa mu koy fekk doonul kuy xaar ndawul faatu bu ñëwee amul xaaral ma jekk ma jekkandiku nam la fekkee rek noonu la yóbboo lu mat a bàyyi xel la mbokk yi moo tax ngeen gis ni nit ku ne nu ne nu nit faatoo na ni am ci melokaan yu rafet lool nit su jootal yàlla di julli si wut nit tim ab jukkeem di jàng alquran ak gut waaye nit tiim na lu xaraam yor kasu ñollo di ko jëfandikoo doxe faatu nit nek na ci ab terrain di fo faatu dikkal ko kon jar na bàyyi xel ginnaaw buy dikk day bette te bu dikkee bax may nga may nga nu mu la fekkee rek noonu la yenu yóbbu te doy na waar yóbbu islaam nee na nit ñi nañu faatoo noonu la ñuy dekkee xaala bi nga faatoo booy dekki noonu ngay dekki wale kon mbokki lu mat a waajal la ab julit day bàyyi xel ni day ngi ñëw te xamut kañ la xamut fan la xamut kañ la xamut fan la na fexe buy ñëw mu rafet waajtaay wi nag bu la dara rajotut nga war a bàyyi xel de ci say jëflante say jëf ak ni nga mel barab yi ngay dem barab boo jëm rek bàyyil xel ne mën nga fa faatu ndax ragaluwut mettiwut say bokk ñu dégg ne barab sàngam nga faatoo kon barab bu nit dugg rek kàddu gu muy yëkkati na jàpp ne mën naa bañ a loolu misaal ma ci mën a fàttaliku dee waaye rawatin na nit ki bu woppee ndax wopp ak dee nag jotewuñ dara waaye nag sabab la ci kon nit ki bu woppee nag war naa gën a yokku ak fàttalikoom ak bàyyi xelam dee bu ko defee moom aji wopp ji lu mën a xew na nongu ne dogalu bi yàlla wàcc na ci kaw àndoon nag sagoom dara jotu ko waaye dogalu yàlla ñëw na lam maanoon mënatu ko léeg-léeg kër yi metti léeg-léeg xel mi tem waaye na nongu ne dogalu bi yàlla ndax yàlla ay nattoo na mu ñit la ko ci yàlla da teg lépp waaye bari lu muy tuub nag tuub dellu ci boromam fas yéene buy génn àdduna bu fekkee ne ca wopp jooja la nar buy génn àdduna moom fekk mu set ci ay bakkaar kon tuub bari lool lu muy jéggul yàlla ca astaxfirullah bari lool lu muy tudd yàlla jàng alquran xeeti ñaan yépp waaye bari lool nag lu muy ñaan borom ndax yonent bi aleyhi daa wax ne ab jullit ngërëm ku doy war la léppam yiw la bu ko xamee nekk yéemu naa ci mbirum jullit léppam yiw la te loolu nee na jullit rek moo ko am su ko mbégte dalee mu sant yàlla mu doon tuyaaba ci moom nekk aw yiw bu ko aw tiis dalee mu muñ mu nekk aw yiw ci moom kon lii dal ab jullit lor nekku ci mën naa metti nag ni ko sëriñ Abdul Qadir Mbakke radiyallahu daan waxee sunu borom dana teg ab jullit lu metti waaye du ko teg lu gënul tiis wu la mën a dal benn muy yokku daraja mbaa muy sippi ay bàkkaar am na ci jaamu yàlla yi ñoo xam ne am na wàccuwaay wu leen seen borom yéene bëgg ñu am ko te jëfuñ lu ko jar yàlla dana di tegle ay nattu ngir ñu mën caa jot moo waral lay lañ gis jullit boo xam ne di baax lool ñëpp xam ci muy waaye mu wopp wopp ju metti laata muy faatu metti ci ay bokkam lool fekk mënta ñàkk a jot ci daraja jooy waaye am koo xam ne it yaayoon yërmande yàlla waaye nag bari nañ njuumte te tuubu ko yàlla yi teg koy nattu fóot ko ci nattu yi ba mu set wécc mu door koo rafaat door ko yóbbu aljanna kon lépp jullit ab yiw la bu ko xamee moo tax na sant bu te ñëwee waaye nay muñ bu am nattu wàccee bu ko defee nag nit bu wéradee na bàyyi xel ni faatoo ngi ñëw xoolal sa bopp yaa ngi doon jëflanteeg nit ñi xoolal yi topp yi war sa dëgganteeg nit ñi nga delloo ko bor ko amee loon bor fay ko koo amee loon dénkaan demal delloo ko wala nga wax fa ndénkaan la nekk lijjanti sa bopp ba sa ginnaaw mën a leer nañ euh, yonentu alayhi salaam noonu na képp koo xam ne dafa yor ak tooñ daa tooñ nit ci deram walla ci alalam na gaaw delloo ko ko balaa faatoo ñëw ndax nee na faatu bis la boo xam ne bu ñëwee bis la ci topp xaalis bu ñuy faylante amu fa xaalis amul foofu yomal xeem amul xaalis moo tax mu ne ku ci amee nit bor wala ak na nga ko fay ndax ku faatu te fekk mu yore bor yomal xeem amul dinaar amul dirham lu fa am ay yiw ak i ñaawteef benn ñu jël ci sa yiw fayee ki nga tooñ wala ñu jël ci ay ñaawteefam sëf la waaye foofu it amul bàlle kon jullit bi it su yëgee ci boppam waxtu wu ne war nay jéggul ay mbokkam di moytu tooñ waaye saa yu dee ba wére di ñëw nag na yokk delloo mboolem tooñ yi jéggulu mboolem àq yi dox digg mag mbokki jullitam fay ay borom yi dox digg mag jaam ni waaye fay ay borom yi dox digg ma boromam bu fekkee yore woon ay kafaara mu fay ko ndax boo yépp la war a fay waaye bind wasiya wasiya bi nekk bu war ak wasiya bi nga xam bu ñu sopp la wasiya bi war mooy nga bind li dox sa diggante jaam bi li nga leen ameel ak liñ la ameel loolu jullit bu ne war na koy bind bari na faatu ay xàq réer ndax binduñ ko amuti seere te àq moom bu réeree fii ci àdduna la mën a réer kenn gisu ko waaye bu yemal xaamee faw mu lijjanti ko ku yóbbaale àq jaam faw nga fay ko kon bind wasiya daf ci maa wa maa li nga moom liñ la amee li nga amee nit ñi lépp nga leeral ko ba bu ëllëgee lijjanti si ginnaaw yomb naka noonu wasiya mustahab ba mooy bu yàlla defee nga am alal bàyyi fi alal ju bari yoo xam ne sa ngeboot dana ci waaye mu mën a yaatu sa mbokk yi nga xam ne duñ la donn waaye séq nga ñoom jàmm am na lu leen boole woon nga bind wasiya ci sa sulusu alal ndax doomu aadama su faatoo moom moom sulusu alal nga jox bëgg ña nga bëgg ñu dimbali leen say jarbaat say yaay yu ndaw ak ñu demee noonu nga xam ne waruñoo donnu waaye seq ngeen taraanga wala sax mën naa am yaa leen yoroon nga def was yéene nañ ma leen joxal nangam bind ko wutal koy seere wóorlu ko fu wér ba nga xam ne bu ëllëgee lënt du ci am loolu mbokk yi bokk na ci li ñu sant ak jullit mu di ko def war koo def baax na lool mu def loolu ku def loolu ñaare ñi koy faral def bu ñu faatoo seen mbir la yëmbale ñin dañuy fekk këyit woo xam ne lépp nga jëm kuñ amee lanke nuñ koy fayee luñ loolu ku leen nit ameelante bu ñuy baal baal bu ñu ko baalu ne baalu ma su boobaa lijjanti ko day yombu ndax lu ci nekk li ci am solo rek mooy na am firnde te bàyyi xel loolu moo wax ne yowmal xiyaam yonent bi aleyhi nee na xaalis amu fa àq yi nga ameel nit bu dee xaalis la yowmal amoo xaalis boo koy fay aw yiw nga am ñu jël ci boo amut yiw waa ji ami ñaaw jël ay ñaaw téefam jël ci saf la li ci topp mooy ab jullit day rafet njor ba ngay dund ab jaam diggante alxaw war rajaa la war a nekk ragal yàlla lool di tiit ni ba wëttuwut du mucc bu ko dara jotul ragal yàlla la war a jiital ci am xelam yéeg ni daal mucc yomb naa góorgóorlu waaye boo dee ba faatu dikk nag nga wére di néew doole néew kàttan jiitalal yaakaar yàlla teewlul yërmaande yàlla di bari ji teewlul njëggalam gu yaatu gi loolu dana tax sam xel mën a dal kon jullit bu jegee bu wéradee notal cim xelam rafet njort ci boromam ndax yonent bi alayhi salaam moo ne woon bu kenn ci yéen faatu ci ludul muy rafet njort ci yàlla boromam la yamu yamutanna ahadukum illa wa huwa yuxsinu dhanna billahi taala bu kenn di faatu jàpp ne sawar la jëm wala dana alku ndax daf ne bàkkaar yu bari tooñ rafetal njort ci sa borom ginnaaw boo jaaree fi ñu war a jaar ci jéggulu tuub rafetal njort ci ne bàkkaar lu mu rëy rëy tilim la saabu tuub moo koy fóot te mën na koo fóot ba mu set ba mel ne dara nekk du fóot wala sax yàlla ci mbaaxam nit dana tuub mu jéggal ko bàkkaar ya soppi ñaawtee fii ay yëw muy teewlu yooyu rafet njort ci boromam waaye mbokk yi bu kenn wéradi wéradi gi metti ba mu naan ba mu mébéta faatu ab julit def loolu lu metti metti bul mébét mukk faatu umul fadli radiyallahu anha sox doomi sëñ mam abbas nee na bi seen bàyyi wéradéem abbas di bàyyi taxu yonent bi aleyhi salaatu day ñëw di ko seeti fekk ko mu sonn lool ba àgg ci di jàmbat di mébét di mébét faatu yonent bu ne ko bàyyi bul mébétati faatu ndax bu fekk yaa ngi doon def lu rafet loo fi gën a mujj sàllu rafet bi yokk loo gën a dugg lu baax li nga doon def boo wéradee de mënatoo ko dañ lay bindal tuyaaba saa bu waxtu woo jotee ñu bindal tuyaaba jooju kon aw yiwu yokk na waaye bu fekkoon yaa ngi doon def lu ñaawit nga des fi yàlla man la dimbule ba nga tuub ba lu ñaaw la ñu faral la ko moo gën kon bul mébét faatu kon kii def lu rafet bu mébét faatu ndax bis bu mu desaat ci àdduna rek day doole ko ay yow waaye kii def lu ñaawit bu mébét ndax mana naa am bis yam dijaga, des ci la mbiram kubakar jage ci lay tuube ñu jégal ne bu nit mënta ñàkk na wax ne yow yàlla maa ngi lay ñaan fii ak dund gi moo gën ci man yàlla nag ma dundal waaye bu faatu gënee ci man nag yàlla nag ma rey allahumma ahyini ma kanat alhayatu khayran li wa tawaffana idha kanat alwafatu khayran lana bu nit mënta ñàkk wax dara daal sonn na ci àdduna daal na wax loolu waaye bul wax mukk na ñëw naa noppalu déedéet ab jullit du wax loolu kon mbokk yi loolu mooy war ko wopp ay mbokkam yi war ko ci jàppale nag li ci topp mooy nit nag bu agsee ba malakul mawti ñëw war a jël si ak ruuxam abdul jabbaar moom la wolof yi naan abdul jàmbaar abdul jabbaar mom la yàlla sant ak ñi muy àndal ñi ngepp roy ku faatu ñol ray mbokk yi kenn du faatu te ab digam jeexul yi sabab di ray yep ay sabab rek la ci waye faatu moy dig bu jeex bu xasse jeexit nak dara mën ko te wa man lam yamut bi sayfi mata bi ghayrihi taaddadat al asbaabu wal mawtu waaxidu ku faatuwut ci tollu xare ba faatu ci kaw lalam ab nit du weesu ab diggam ku jël jaasi dóoru ko nit sabab la am na bàkkaar waaye waxtu wooy la waaj war na faatu bu faatu wutoon ca loola it faatu ci leneen waaye du nit du weesu ab diggam ndax yàlla moo noppi ci loolu nit ki li muy am li mu fiy def kañ la fiy jóge yàlla noppi na ci ba nga juddoo rek la ko suñu ba masoon te du jaas kon bu faatu dikkee lan lañu war a defal ndax kooku foofu mënatu boppam dara néeg bi mu nekk lépp luy tax malaakam yërmaane du fi dugg nañ ko fi jëlee waru fi woon a nekk de waaye bu seytaanee wala fàtte wala njuumte taxee mën a fi nañ ko génn bokk na ci yooyu ay fowukaay yoo xam ne dëgganu ci lislaam yi di ko jëfandikoo bokk na ci këlbu boo xam ne sharia digle wut ñu yor ko këlbu yi sharia digle mooy këlbu buy garde wala nga ciy rëbb di ci dund waaye yor ko rek ngir zina di ko taaroo boobu kël bu wërti nekk ci kër néeg bu mu nekk malaakam yërmaane du fa dugg ay nataal lu am ruux nga nataal ko mu am takk ndeer bu mu nekk malaakam yërmaane du fa kon yu mel noonu bu ñu ko defee ay meebale njuumte la waaye bu nit nekkee ci néeg di sukkuraat nañ ko fa jële ndax malaaka yërmaande yi man koo taxaw musal ko ci seytaan yi fay ñëw naka noonu jigéen joo xam ne certitude bu mënee sori barab boobu moo gën buñ mënee fexe barab bi mu nekk it ñu su daf ci cuuraay xet ko xeeñal ko xet gu neex ndax malaaka yi dañoo bëgg xet gu neex waaye buñ ko mënee wis ak ndoxum ward day dàq seytaane yi dana taxit sukkuraat sa gën a woyof kon ñu fexe ba barab bi daal xet gu neex dafi xeeñ waaye lépp lu yàlla bëggut malaakam yërmaande bëgg ko ñu sori ko malaaka yi ñëpp si ruu moom ak ñii bind say jëf moom ma lu lu bon ak noo mën a mel ñu ànd ak yow ndax dañoo am ndigalu ànd ak yow ñoom waaye malaaka yërmaan yi nga xam ne dañuy wàcc ci yërmaan dalal sam xel ñoom la wax ne fu lu lu baaxut nekk dat duñ futa bi ñoom kon nit ki buy sukkuraat nañ fexe barab bu nekk lu mel noonu na ko sori dana tax sukkuraat si woyof nañ ko wàcc tëral ko ci suuf ndax suuf mu ëpp yërmande bu dee bañ xam ne dëppatul buñ ko tëraloon ci kaw lal nañ ko teggi mu tëdd ci suuf mu ëpp yërmande mbokk yi bu dee ba ruugay dog ba yi day ubbeeku su boobaa nañ ko wëlbati jëmale ko xibla su ma nee tëdd wetuk ndey jooram bopp bi féete saalum tànk yi féete gànnaar bu jublu xibla nañ ko def su mën mënta am ñu jaaxaanal ko tànk yu jublu xibla bopp bi jëm sow melokaan woo lañ gën a bëgg ci waxtu woowu ku ñuy wax Barra ibnu Maaruur bi mu faatoo yonent bi islaam da koo laaj ñu ne ko faatu na de waaye bi muy faatu dafa dénkaane woon ne sulusu alalam nañ la ko jox daan ne buy faatu it nañ ko jëmale xibla يرنب الإسلام داني أصاب الفطرة دفنا لينغ خمني نون لا جلي ورد داني وحني وعينا سورس بما ما ين مم دالو ناكو إيجا مودا داني جلي كو نيان لكو يالا وعي بغن نج بودت كي فاتو سكرات نيجن دال ويريدي كي متنا نج توقي ويتم نان لا إله إلا الله محمد رسول الله ndax yàlla mu mujj ko wax ndax ku mujj ci aw làmmiñam day tàbbi aljanna man kaana axiru kalaamihi laa ilaha illallah daxala aljanna ñu koy islaam moo ko wax kon nañ ko talqiin toog ci wetam di wax laa ilaha illa fàttaliku bu ci xelam day mu tudd ko bu ko xasee wax nag bu kenn waxati fii ak waxut leneen bu waxaate leneen ñu fàttali laa ilaha illallah ndax yàlla loolu mujj ci aw làmmiñam kon ku teew nit kuy wuj yàlla nay tudd yàlla ci wetam di ko def ci dal ak ndànkam bu ñu sañoo ni ñëm gën a bëgg ci ay bokkam ak i xaritam ak i doomam ñoo fay nekk ñam gënoon a jege gën a déggoog ñoom nañ na ci wetam ndax yonent alayhi salaam moo ne laqinu nu la ilaha illa allah waaye nañ ko ñaanal nit ku toll foofu nañ ko ñaanal yonent alayhi salaam nee bu nit ki bu faatu dikkalee nit na wax lu baax ndax yàlla malaaka yi dañuy wax amin yàlla ko yàlla defal sutura yàlla ko yàlla yërëm yàlla yàlla woyofal ñaan ñaan yooyu rek malaaka yi dañ fee nekk naan amin amin kon ku toog ci mbokk mu wéradi wala muy sukuraat na nga ko ñaanal yàlla fa mu jëm jàmm rek mu fekk ko fa ak yow loolu malaaka yi dañ koy amin te kon yàlla mën na ko nangu loolu kon mooy waaja waaja kon topp ko taxawu ko ba mu faatu bu yàlla dox dogale nag ruu gi tàqali ko yaram bi nga xam ne léegi dundatul te bokk na ci ay manto yu bari yu ñu koy xamee yoo xam ne su amee rek ñoo xam ne faatu bu xasee faatu nag nañ ko doggale doggale mi ngi tàmbulee ci nit ki buy faatu bët yi day ubbiku day ubbiku ndax ruu gi day topp bët bët yi day topp ruu buy dem melokaan wu xaw a ñaaw la kon nañ wut ndox sëlëm ko delloo si bët yi bu ko defee wut ab morso bu yaatu ron ko ci ron sikkim bi takk ko ci bopp bi ndax bañ gémmi ngi ubbi ko mooy takk loolu bokk na ci li waaye nooyal cër yi yëkkati loxo yi tëralaat lem ko di ko lem ko tàllal di ko lem ko tàllal def ko tànk yi ndax su faatoo ci benn melokaan ñu bàyyi ko diir bu yàgg sidit yi day wow te bu xasee wow bu fekkee daa fekk mu lem mu dut tàlli moo tax léeg-léeg mbokk yi nit faatu fu kenn nekkul gis bu ñu koy yóbbu tànk bi day lem te ab jullit kenn waru ko damm ndax damm nit ku faatu mook mu kuy dund ñooyam kon bu fa nekkee nañ fexe ba cër yi ñu yëkkati ko tëral ko ba nga xam ne nii siddi gi du lemu fenn loolu bokk nañu bëgg ñu defal ko kuy door a génn àdduna waaye nag waxoon naa ñu teg ko ci suuf ndax mu ëpp yërmande waaye bu xasee faatu nag nañ ko tegg ci suuf ndax mënalutul boppam dara mënatul aaral boppam yi dox ci suuf mën nañu ñëw di ko laal kon nañ ko yëkkati teg ko ci kaw laal nañ muur aw yaramam waaye buñ ko bàyyi mu tëdd noonu rek ku dikk romb gis yonent alayhi salaam dañ ko muuri woon am mbubb nañ teg ca biiram lu xaw a diis ngir bañ biir bi new yi nañ jël lu xaw a diis jaasi ju diis wala yu mel noonu teg ko ci biir bi lépp nag ci ndànk ak dal kenn dafa doole maanaam na na ko yërmaande lal Ummu Salama nee na yonentu alayhi salaatu wasalaam bi mu ñëwee di seet ci Abu Salama borom këram fekk ndeysaan bët yi xulliku muy faatu yéen da wax ne ruu gi day bu ñuy jël si bët ruu gi bu ñu koy jël bët bi da koy topp moo waral borom di di xulliku ba mu waxee loolu ay nit daldi yuuxu yonentu ne bu leen yuuxu de wax leen lu baax rek ndax malaaka yi li ngeen di wax dañ naan amin kon wax leen lu baax daal wax ne yow sax borom yàlla na nga jéggal abu salama yàlla na nga yëkkati dara jàmm ci ñi yàlla gindi yàlla na ko wuutu ci njabootam ci ñi fi des yàlla na nu jéggal te jéggal ko yàlla na nga yaatal bàmmeelam leeral bàmmeelam lu mel noonu ku fekkee nit faatu bëgg nga ñaanal ko ñaan bu mel noonu ndax yonentu alayhi salaam moo ko ñaanaloon abu salama radiallahu anhu faatu na dogali nañ ko muur nañ ko nu gën a gaaw ci denc ko jëbal moo ci gën yonent bi noonu bu nit faatoo gaaw leen jëbal ko borom bu dew yiw mu gaaw a tàmbali bu def safaan ngeen tàggoo moom yéen ngant rek mbokk yi moo mën tax nit faatu ñu teg ko diir bu yàgg ngant bu amee nag mënis na koo teg bu ñu mu mu soppi ko waaye fu ñu ragalee soppi ko mu dañ ko war dañ kon gaaw ci waajal ko ak jébbal ko boromam ki nga xam dal bëgguñ gaaw mooy ñi faatu faatu yu gaaw ku lab ci ndox duñ gaaw suul moom ndax nit da lab ba jàpp ne faatu na fekk noo gi daa aju waaye crise yi nga xam ni day jékki-jékki rek ñu la faatu na ñooñu it bëgguñ gaaw leen a denc dañ wóorlu léegi nga xam ne docteur mën na ci am lu leer booy docteur ba mu xool ba ne faatu waaye yu mel noonu moom kenn waru leen gaaw a waaye noyeetu rek wér gi jaaxal la nga daan ne waaye tey ku faatu yenn faatu yu gaaw yi ay crise cardiaque ak xol bu taxaw ak yenn kii moom li ci gën mooy bu ko gaaw a denc nañ bàyyi dont dañuy xaar ay fan ngir wóoru lu faatu na lu moo gën dem laaj ko docteur yi bañ vérifié ko ba saxal waaye bu dul loolu nag ku faatu nañ ko gaaw waajal jébbal ko boromam waajtaayu ku faatu nag bu amee alal ci alal nañ ko war a waajal su ko amul ay njabootam am ko ñoo ko war a waajal su loolu amut fa mu nekk jullit yi fa nekk ñoo ko war a waajal ndax ci kii kifaaya yi la bokk bu ñëpp toogee kenn joxewul dara ñëpp ay am bàkkaar waaye bu ko ñenn dafay nekk mu wàcc ci des kon bu ko mënee am wala ay wala ak njabootam su amul nag quartier ba mu nekk nañ woo nit ñi ne leen seen mbokkum jullit faatu ñu war ko waajal kenn ku ne joxe la am ñu boole ko waajal ko ci loolu bokk na ci li nga xam ne dañ koy soxla ci ak jullit waajtaay wa nag la ci jiitu mooy sangu ginnaaw bu ñu ko defee noonu ba noppi nag yóbbu ko fa ñu koy sang ñu sangu ko bu sang mënee am am na ñoo xam ne mënuñ si leen sang mbokk yi ndax dañuy faatu ci anam goo xam ne boo sottee woon ndox rek daruy topp ko kenn du ko sang yi sàmm war maam dañ koy tiimal dem jul dem faatu ci lakk ba nga xam ne yaram yi day ñor ñooñu kenn du leen bu fekkee nag boo sottee ndox bañ a bomb der bi dag lu top man nga sot ndox kesse baña bom waye bu fekke nak ndox mënu ko laal dañuy bayyi sang mi te timal sang ko it nañ ko sang sang mu tol gën ja neew ñatt yoon cangay mu ñëk bi ndoxum mutlaq lañ koy sangi ngir labal ko ni ñi sang di farat sango farat lañ koy sangi teural ko te bu ñu koy sant yi nag dañoo bëgg ñu summi summiku ba mu des li tàmbalee ci jumbux ba ci bëti wow loolu moom kenn ko gis doonte ñaari way dencante lañ ñetti xeeti cangaay benn bi ngir laabal ko la beneen ngir setal kon ñaareelu cangaay bi bu ñu ko xasee nit ñi sangoo farata ba noppi ñu wut meneen ndox moo xam ne day am déem xobi déem wala saabu tey xabul saabu di ko sangu ba mu set ngir taq taq yeeg tilim tib mën a daj bu cangaay moomu noppee ñu wut meneen ndox sotti ca gët sangaat ko ci nga xam ne ngir mu am xet gu neex ñetti xeeti cangaay yooyu lañ bëgg ñu dafa ko néew cangaay mu njëkk mi ndoxum mutlax lay doon ngir rek laabal bu ñaareel mi ndox mu ànd ak saabu ngir setal ko ñetteel mi ndox mu ànd ak gëtt ngir indil ko xet gu neex ñetti cangaay yooyu gën jaa néew ne cangaayul ñaareel bu ñu ko defee benn yoon sang bu setut dañuy bëgg ñu sangaat dañuy sang ba muy set rek bu setee nag nga door a indi cangaay mi nga xam day ànd ak gëtt waaye bala ñu ko sang nañ nal biir bi ndax dañuy bañ sang ko ba noppi sobe génnati moom nañ bés biir bi dànk bu fekkee am na sobe suuf doon génn mu génn ñu raxas ko doo koo sang waaye kenn du ëndi rek tàmbali sang doon nañ muur awra ji bu ko defee ki koy sang buy buy raxas awra ji na wut ay gaa yu tal walla morsa laxas ko ci loxo bi di ron loxo bi ci ron mbalaan mi nga xam ne moo moo muur awra ji waaye kenn du tiim ab jullit di gis awraam di ko sang da ngay doxalee dara sa diggante moom da ngay doxal dara sa diggante moom rawatina bu dee ko sang ñoom abbas ali choqraan dañoo takkoon seeni bët takk seeni bët lañ def bàyyi xel loolu kon fatuna na waaye bu mu tax war ma jig om bi muy dund moom la bu kenn gis awraam laxasal ndax raxasal laxasal ki sa lu tal bu ko defee raxas ba mu set ci sa bët du ci tegee bu ko defee it fi ñu koy sànge moom ki koy sàng ak ñi koy jàppale képp ñoo far a nekk kenn du fa dugg ndax mën na faa lu mu gis te wutu fa dara it nag ndax sutura lañ ko war defal kon ñi fa mënta ñàkk nekk dong ñoo fa war a nekk bu dee sang na ki gën a yey ci sang nit bu dee góor mooy soxnaam bu dee jigéen borom këram buñ jàllee ñi gën a jege ci mbokk yi doom moo gën a jege bu ku góor la doom ju góor sëtam bu góor baayam ay mbokkam baayam yu ndaw noonu bu dee jigéen noonu góor gu faatu nag tam ci barab yàlla dogaloon barab boo xam ne jigéen doo nga fa nekk bu góor faatoo mbokkamu jigéen moo xam ne maxaram la ci moom mën na koo sang waaye da koy suturaal muur yaram jigéen it noonu bu fekkonte ne góor gu faatu nag la fi mu nekk ay jigéen dong nga fi nekk te kenn araamu ci góor gu kenn du ko sang dañ koy tiimal dañuy tiim mas xar bi loxo yi ba ci jonj waaye bu doon jigéen moo faatu xam ne ay góor a nekk te jàmbur lañ ci moom dañ koy tiim tiim boo xam ne sa du mat masaa bi ci tikku jare la yem gis lislaam ni mu bàyyi xel jigéen ci bëgg ñu suturaal ko bañ a jege kéem kon loolu it lu mat di bàyyi xel di ko sóoraal mbokk gën a yey ndax sutural bu mën taal ab jàmbur waaye nag bu dee jigéen na ko jigéen sang bu dee góor na ko góor sang ñetti cangaay yooyu bu noppee nag nañ wut gët def ko ci lu mel ni wëttéen topp barab yi nga xam ne bu daan sujjóot di julli ñooy tege ci suuf jëb yi tenq yi bëti yi baaraam yi ñu def ci gëtt ak wëttéen takku ko ci buntu yi na ci mom, badi bakani, bakkan yi yep gi suuf gi yépp nañ wut wëteen def ci gëtt teg ko ci buntu ba waxuñ dugal ci biir waaye teg ko ci buntu bi takku wut morsa takku kon dañuy takk bët yi takk bakkan yi takk gémmiñ waaye morsa yi ñu koy takk nag day ànd ak wëteen wu ànd ak gëtt buñ ko sàngee ba noppi nag defal ko la lépp nag door fomp nañ wut sarbet fomp ko set bala ñu ko sàng mbokk yi anam yu mel nii moo tax sang néew lay lekk nga gis kuñ dugal génne ko mu leer leen sanguñ ko dañoo xëpp ndox rek te àq la juñ ko ameel nag mbokk yi moo tax jaadu na xeet wu ne fa kër gu ne jàngal seeni njaboot ñu mën a sang néew bu nit faatoo ñu mën ñu ko mën a sang sang bu tegu ci yoon àq yuñ ko ameel la mbokk yi doon lu woyof de waaye ragal faatu bu nit xase faatu loo ko fonkoon fonk bu xasee faatu bala nga am jàmm tàggoo moom dootoo ko bëgg gis ña koy sang xamu ñu doon doo ko lijjanti rafetul ci ab jullit nit faatu koo xam ne bu doon dund du bëgg mukk mu jege ko mu faatu bàyyi ko moom muy lax muy ne ci moom fu ni mu àgg ko fa loolu bokk yi lu mota moytu la kon njaboot yi nañu jàng sang néew nañ jàngal njaboot gi sang néew góor ñi ak jigéen ñi ngir ku ci faatooti li lislaam santaar ñi mën la ko def ci sutura waaye bàyyi jàmbur boo xam ne yoonu yoonu nekku ci loolu mat naa bàyyi xel bokk yu baax a baax bi ci desit gi sanguloo néew koo xam ne lu mu ca gis da koy nëbbu yi islaam nee na ku sang am néew nëbbal ko yàlla jéggal ko ñeent fukki yoon nee na ku sang am néew yàlla sàng ko ci malaani aljanna ku gasal ab néew am pax wàcce ko ca am tuyaaba ku dëkkal nit ci kër ba yomal xiyam kon yi jëf yi yiw la mbokk yi yu baax a baax la yoo xam ne kon nañ jàngal njaboot yi ñu xam ne jaamu yàlla gu rëy la ku gasal nit bàmmeel ñëw dugal ko ca mu dëkk ca ba yomal xiyaam mel nga ne ko am kër jox ko nit mu dëkk ci ngir yàlla tuyaaba ju toll ngay am kon yu mel noonu it nañ ko bàyyi xel mbokk yu baax a baax di jàngal suñu njaboot yi mel noonu ba ñu man koo taxawee na mu gën a mate gën rakate rafete nit ñi faatu ñu leen di suturaal ci anam mu gën a mate waaye bàyyee ko rek koo njëkk jot doo lijjil sax ku ko doon sàgg loolu mat a bàyyi xel te it am na ñoo xam ne màggat moo xam ne moom ci boppam dañ ko war a taxaw it boo ko dee sangu la nit yi yàkkutoon xam nga ne mën ko sang kon ñi toll ci kàttan doon ndaw doon nit ñu yiw ñu yar leen jàngal leen ñooñu lañu war a jàngal sang ñu xam ne jaamu yàlla gu gii la yiw yooyu ci nekk njëkk leneen di ci nekk loolu jàpp naa lu mat a bàyyi xel la kon bu ñu ko sàngee ba noppi ci anam googu ñu wax loolu nag dañ ci dégg ne kon mënta gaaw yenn gaawaayu mbokk yi bi ci des mooy kon nañ ko sàng ci saasa kenn du sang néew teg ko noonu di ko gaaral noonu déedéet nañ ko fomp bu noppee da koy sàng ci saasa càngaay it nag lu weex a ci gën càngaay it mu tóol moo ci gën càngaay li nañ ci sotti gët xëru ko xëru cuuraay ba mu ànd ak xet gu neex door ko ko sàngi nit ku ne nag ci la doon dundal bi ngay dund boo faatoo moo war a nit ku ne ki ko doon dundal bi muy dund bu faatoo moo ko war a sànq ba mu des boroom kër ak soxna fu xaaw yi nee ñu nit sang sangu soxnaam warul ko ndax dundal gi mu ko doon dundal sëy bee taxoon bi mu faatoo sëy ba tas na xëy loolu nag moo ne ci téere yooyu nag ànd ak ni muy dund ba faatu ñu la kay sànk nga lànk moom jàpp naa ne jullit bu pas pasam dëgër du ko def waaye nag bu ci xëccu amoon dem ci yoon nag li téere yi jàngale mooy sàng soxna wër borom këram ñu sàng ko càngaay lu tool bu dee góor juróom bu dee jigéen juróom-ñaar aname càngaay yi nag bu dee ci mësab bi dañuy wax nañ ko wutal mbubb bu dee góor wutal ko tubay wutal ko kaala koo xam ne day am luy lang muure ko bët yi door a wut ñaari morsa laxasa kon boo jëlee mbubb mi tuba gi ak kaala gi mu ñett ak ñaari morsa ñu koy laxase muy juróom bu dee jigéen nga wutal ko muuraay wutal ko mbubb wutal ko askumba laxase ko ñeenti morsa ndax moom lañ gën a soxla ñu sutural ko loolu lépp nag mën naa bàyyi xel wala boog anam genn gi ñuy def nga xam da ngay teg morsa ñetti morsa yi teg néew bi ci digg bi jël bi ci kaw takk jëlaat beneen bi takk bi ci des takk anam boobu it gis na ko sàgge néew yonentu yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam noonu lañ ko sàgge woon laxas ñetti morso daal ko ci laxas takku sallallahu alayhi waaye bu dee ne bu fekkente ne nag ki faatu amul kenn ki ko doon dundal amul lum ko sànge amut ay njaboot yu ko man moom itam jamaatul muslimin la war kon waa koñ bi nekk mbokk seen mbokk faatu ñooñu nañ dajale jëndal ko jàngale xam ne ñoom la war buñ ko sàngee nag teg ko ci ak jaat yóbbu ko fañ koy jullee bu dee néew bu jigéen nañ wut lu muur jaat gi nañ def lu mel ne xubba këpp ko ci kaw muur gi jaat gi bu nag bi nag muur loola ak mbala loolu lu war bàyyi xel ci bokk yàlla daa bëgg ku sutural jigéen ci anam yépp ba bu faatoo bu ñu ko teg nii rek teg ci kaw jaat indi tëral ak mbalaan sàng déedéet na am xubba bu ko muur nga xam ne kenn du gis jëmm ji ba noppi nag loola it nañ ko muur ak loolu moom lañuy ñu santaane ci bu nit fa di jigéen ñu indi nag fi ñu koy jullee buñ dikkee di ko jullee it nag jullee gi it fardu kifaaya la ki gën a yay ci julleem néew mooy ci néew bi wax ne su ma faatoo na ma diw jullee ngir yaakaar barkeem ndax am na ñoo xam ne yàlla dafa de ci ñoom ku ñu ji jullee ñaanal yàlla yërëm la kooku moo gën a yee ci julleewu bu ñooñu jàllee ay njabootam doomam sëtam baayam ay bokk noonu waaye daal ki mu wax ne na ma jullee bu faatoo moo gën a yee ci mu jullee ko yi sa mbokk faatu nga teew jullee gi am na solo yu islam nee na ku teewee julleeb néew fekkee ba ñu jullee ko am nga aw dog ci tuyaaba boo fekkee rob ba am nga weneen dog mu ñaar ñu ne ko dogu lan mu ne dog wu toll ne doj am ci riwaay boobu xam dane wu toj ne jabalu Uhud yi loolu am na solo suñ bàyyee xel ne yowmal xiyaam jëf yépp dañ leen di peese ci ay balance ku am yiw wu toll ne ñu tegal lok ci am na solo te teewee robu mbokkum jullit teewee denc ga dana tax nga am ñaari dog yooyu kon bokk ci julli gi am na solo julli gi nag ñeenti kàbbar lay doon ginnaaw yéene aji aji jullee ji li muy yéene mooy jullee néew bii mu tiim du jëf sart mu xam góor la wala jigéen du jëf sart mu xam lu mu tudd waaye na xam ne kii mu tiim lay lay lay jullee bu ko xamee nag baax na waaye bu ko xamut it na yéene rek jullee kii mu nekk kii mu tiim bu dee kenn mu yéene kenn bu dee mbooloo mu yéene mbooloo mi bu kabbaree benn kabar ñeenti yoon lay kabar diggante kabar bu ne ak morom ji mu ñaanal néew bi waaye ñaan boo xam ne sant yàlla ak julli jonti moo koy jiitu loolu mësa bi am bu ñeenti kabar yi matee mu ñaanaat daal di sëlmal sëlmal bu woyof boo xam ne moom ma ilimaan dana ko dégg ak ñi ci gën ak ñi ko ñi ne ci moom genn ginnaawam waaye maamam yi moom seeni sërmal ñoom dong ñoo koy dégg buñ ko mënee it ñu def ko ñetti sàppe gën jaa néew am na xadis bi wax ne ku ñetti sàppe jullee ñu jéggal la baax na it yooyu di ko bàyyi xel gën jaa néew sàppe yi man ñett mbooloo bare mi it baax na buñ yëgle nit faatu xëy na taxaw ca kaw ci jàkka ji di yëgle ca kaw ni diw faatu na la ñuy tere waaye mën ngaa dem jege nit ñi wala rek jokkookaay am na woo nit ñi ne leen diwoo faatu waxtu sàngam lañ koy tàggee gi lislaam di tere mooy jamonoy ah jamonoy ceddo ga jaahiliya bu ñu daan tàgge dañ daan yuuxu di kañ waa ji faatu di tudd ay ba ay bakk bakki loolu la lislaam di tere waaye wax rek ni diw faatu na waxtu sàngo lañ koy jébbal kenn terewu dañoo bëgg sax nit ñu ñëw nag ndax lu ñu gën a bari di ko ñaanal yàlla di ko jéggulu seen borom yàlla mën ko jéggal ndax jullit ñu bari dajaloo ñëpp di ñaan di jéggulu am na solo waaye mbokk yi ku teew ci armeel dina nga jéggulu ki faatu bari na ñuy teew di ñaan nag mi rek daanaka duñu wax dara waaye jàppal ne sa mbokk faatu soxla loolu nga dimbale ko tey kon ñaanal bari la nga fay nekk di waxtaan ak lu ne nga dugg del teewlu di ñaanal ki faatu del teewlu di ñaanal ki faatu bu dee ki ñuy jullee góor la ci masa bu malik moom fi tolloog ndigg li la imam di taxaw daan ko lu jege centimètres dañuy sàpp ci ginnaaw bu dee jigéen mu tax fi tolloog mbagg yi hadis ñëw na ci ne yonte salaam jullee na ak jigéen taxaw fi tolloog ndigg la ñoom dañuy wax ne booba jaat gi ñu wax ni nga xam daa am néegu nuñ ko war a ba kenn du gis yaram amagut bi nekk sutura si mbooloo mi ci ginnaaw duñ gis néew bi moo mu taxaw ci ndikkam waaye bu yi amee kon moom la taxaw kon fi tolloog ndax musal ki koy muy xalaat loo waru xalaat lépp ba tey mi ngi ciy suturaal jigéen ak sori xalaat yu ñaaw moo tax ñu wax loolu julle gi it nag kàbbar bu njëkk bi muy kàbbar xalma ci la ñuy yëkkati ay loxo ci masab Maalik yi ci des yëpp dangay ngay kàbbar képp doo yëkkati ay loxo am na luy xew nit ñi di ko def loo xam ne moom kenn waxul ko njuumte la ñi wax ñaar rekk am kabar bu njëkk bi rek nga yëkkat say loxo yi ci des kabar rek ak ñu ne kabar bu ne da nga yëkkat say loxo waaye am na nit ñoo xam li ñuy def kenn du doon nii la ñuy def nii lii moom dara kenn sa ndaatu kabaral yëkkati say loxo mu tolloog say nopp mbaa say mbagg mbaa nga bañ kabar waaye yëngali loxo moom kenn sa ndaatu loolu bàyyi ko xel mbokk yi ci bu dee li nga kabaru arab nga loxo yi ci des waxal allahu akbar jàng li nga war a li gën ci lu ñaan lim mooy yow borom bi yàlla na ko yërëm te jéggal ko ku man ñaan ak yoon eh, aboo Abu Hurayra nag moo gën ci mosat bi waaye ñu bàyyi xel mbokk yi ne jullee néew ak sang néew ñoo bokk at ñoo taxoo it képp ku yoon ne nañ ko sang danañ ko jullee ku yoon ne deesu ko sang deesu ko jullee ñi ñul sang bokk na ca ku doon jihaat ñu woote toolu xare ñu jihaat yoonu yàlla ku ca faatu jërul sang moom àjjana la jëm ñaan dara jëru yéeréem yam sol lañ koy suulaale noona bu dem àjjana naka noonu liir bu juddu te indiwaalewul bakkan kenn du ko sang kenn du ko jullee naam danañ raxas deret ji danañ wut ab morsa laxas ko ca waaye suule ko noonu waaye nag ku juddu jooy ba xam ni doon na dund lu lu dund gàtt gàtt bu fekkee dund na rek moom danañ ko defal li defal jullit naka noonu ku faatu woon te la ëpp ci aw yaramam feeñu yàlla tere aw rabu àll lekk ko ba ba muy feeñ ay dox ay tànk dong lañ gis kooku kenn du ko sang nañ dajale ya feeñ laxas ko ci morso dem su jibbal ko ñooñu duñ leen sang duñ leen jullee jullee dañ ci sart la ëpp ci yaramu ci masa bu malik biir jàkk dee su ci jullee néew masa bu malik biir jàkk kenn du ko jullee néew julee néew nag mbokk yi dagan na ci waxtu yépp guddi ak bëccëg ba des waxtu yi mooy bu jant bii lang jëm ci so ba ba muy tàmbalee soow sib nañ ko fa julee néew sib na nit ko fa suul ab néew loolu ma ta bàyyi xel waaye ginnaaw takkusaan moom bu ñu door a sëlmal takkusaan kenn ci mazahib yi ñu xam terewu ci julee néew kenn terewu ci julee néew waaye nag boo ko xëccee mu yéex léeg-léeg nga dem ba waxtu wañ maye woon jeex walla boo bu waxtu wa jeexut it boo jullee ba noppi waxtu wa nga koy suul moom waxtu wuñ tere la amma jamono jant bi fe fenk ak bu muy so waxtu woowu jullee ci ne dafa xaram waaye ginnaaw takkusaan booba jant bi lang manis naa jullee néew manis na ko fay suulit bu xasee jegee lang bu kenn ti néew bu kenn suul ne waxtu woowu moo taxit léeg-léeg ñu war a bàyyi xel Eh, ginnaaw takkusaan yi ñu yeexee léeg ba sori nga xam ne bu ñu ko jullee ci mujjug waxtu wi suul nga moom ci waxtu wi ñu tere lay doon loolu mën na bàyyi xel bu ñu jullee suba it ba ba muy leer xëy na fii loolu yombut ndax histoire bu dee yeneen réew yi day yàgg waaye fii moom suba ak histoire dañoo sësaloo daanak waxtu bu xasee leer kenn dootu jullee néew baba jant bi fekk jëm kaw waaye bu xasee yor-yor nag manis naa jullee néew. kon guddeeg bëccëg loolu mat na bàyyi xel ginnaaw takkusaan kenn terewut julleeg ñëw ci masaayib yépp ndax waxtu yi ñuy tere naafila yépp dañuy amuñ ci sart yuñ ci settee bokk na ci jullee néew ak yeneen demee noonu waaye yonent mu ñetti waxtu yi deesu ci euh, dañ ciy tere jullee néew ak rob ci ku faatu bokk na ca euh, ginnaaw buñ jullee suba bam leer naka noonu bu jant bi lang ba ba muy so waxtu yooyu kenn du ci jullee néew mbokk yi waaye kenn du ci suul ak néew nañ ko bàyyi xel nañ ko bàyyi xel suul yi nag yóbbu ci armeel yi lu raglu la képp koo xam ne bëgg nga waaru bàmmeel doy na waare noo mën a toll ñu gasal la loo xam ne bu ñu ko tiimee jàpp ne xajoo ci fexe ba dugal la la ci suul la wacc la fa dem ku mu waaru dara mëntu la waar loolu moo tax ku ne war na dem ci armeel di fekki robbi yi waaye di waaroo li na ci sa bopp ci àdduna yaay lu amut mu dañ ndax foofu rek ngay mujj noo mën a toll foo ngay mujj loolu nañ ko bàyyi xel ñaari anam nag moo am ci li ñuy suulam néew li ñuy wax laxd ak li ñuy wax shaq laxd bariwut fii ndax bu dee suuf su dëgër lay am da ngay gas am pax niñ ko baaxoo def fii ba noppi nag ci penku nga gasaat fa meneen pax ci xibla bi ba néew ba xaj fa nga dugal fa néew ba jël lu mel ne li ñuy wax labin nga xam ne mooy karo yu mag yi tey sësale ko ci moom làq néew bi nga xam ne pax mee gasoon boo koy suulaat paxum kese ngay suul loolu mooy li gën bu fekkee suuf si dëgër na yonent yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam noonu lañ ko dencee bi mu génnee àdduna ñaari gaskati néew ñoo nekkoon madina abu ubayda amir ibnu jarrah ak ku ñu wax abu talha zayd ibnu sahl abu ubayda moo daan gasal wa makka te moom shaq la xamoon mooy ñaari kër li ñuy tudde fii ñaari kër da ngay gas pax mu yaatu gasaat ci digg ba suuf meneen abu ubayda makka dan gasal non loon gase abu talha moo nekkoon madina di gasal mom lahd bi sahaba yi woote luñ koy defal ñu ne yàlla yàlla na nga tànnal sab yonent li gën daal di yónnee abbas radiallahu anhu yónnee ca abu talha yónnee ca abu ubayda yàlla dogal abu talha njëkk a ñëw ñu ne kon moom la ko yàlla tànnal moo ko gasal laxd ñu denc ko ci sallallahu alayhi wa sallam kon laxdu moo gën waaye bu dee yonent alayhi salaam it yokku na ci waxoon ne al laxdu lana wa shaqu li gayrina am na ñu ko firee ne ñun ñi dëkk ci suuf su dëgër laxdoo gën ñeneen ñu dëkk ci suuf shaq am ñu wax ne jullit yi ñoom laxd ahlu kitab moom shaq lu ci nekk dégg nañ ko noonu waaye li li li leerul daal xam nañu bari xamuñ ko moom mooy li ñuy def ci barab yu bari gas mel na pax teg ci néew bu sotti suuf ci kawam directement noonu ñaari xeeti yi daal lañ jàng ci téere yi ne bu ñuy suul ab néew nañ ko laxat mbaa ñu sàq bu ñu mënta def laxat nañ sàq ci sàq bu ñu ko defee mooy gas mel pax ci digg bi bu ñu ci dugalee néew bi dañuy wut labin yooyu ñu waxoon lu mel ne ay karo yu mag muure ko pax mi ba nga xam ne booy suul pax mi moom doo gis néew loolu it maa ngi gis ne ñii defar yi ñuy xam ne néew ba yooyu lijjanti waale woon yu mel noonu doon na baax ndax garab yi ñu dagg moom garab dañ koy jariñoo waaye ku faaru ñu dagg garab dana tax bu yàgg garab dootu dund waaye mën nañoo defar tey yu mel ay labin yu mel noonu di ko la ci bagage yi nga xam ne moom la ñu waajal néew ñu xam ne bàmmeel bi ñaata labin moom la soxla ku faatu ñu indiwaale la ko moo gën bant yi ñuy wër te mooy cosaan lu mel noonu it du mën a nekk boobaa dana dimbale nit ñi tey dana tax bu ñu koy suul moytu sotti suuf directement ci kaw lu mën a xew nag def nit ci gaal di ko suulaale moom lépp ko gën lépp ko gën xanaa ngànt am ñun la mënuñu su ko dajee bu ñu ko dajee mu explosé wala yu mel noonu ñu bàyyi xel loolu mbokk yi bàmmeel it jërul xóotal sax na ne kaw suuf mu ëpp yërmaane biir suuf gas nanga met ci suuf ngir sul néew de nañ gas loo xam ne du xeeñ rab du ko mën a sul waaye jërul muy gudd yenn xóotaay yi yenn xóotaay jëru ndax kaw suuf mu ëpp yërmaane biir suuf nit bu faatoo fa dëkk suul ko fa faatoo moo gën a yey fa mu dëkk moo gën a yey ndax gaaw a jébbal gaaw a suul nit bokk na ci li ñu waaye nag dagan na tuxal am néew ngir ngant ngir ngant aajo nit koo xam ne ay bokkam ña nga dëkk bi rek sàngam nga bëgg fa yóbbu wala foog fi fii mu nekk ragal nañu bu ñu fi bàyyee lor mën am moo nit mën nañ ko mën naa faatu ñu suul ko ba noppi suliwaat ko bu ñu ci suli ko lor ni ki dañ koo suul ci pegg géej bu yàggee ndox mi dana ko suli mën nañ ko suul yóbbu feneen wala suuf soo xam ne dañ faa yaakaar barke yaakaar biir maa ne ndax lu baax la fa nekk ci mel noonu sañis naa tuxal ab néew yóbbu ci yóbbu feneen dañuy tere it nag nit bu faatoo ñu suul ko ñuy tabax fi mu nekk bu fekkee armée la yu ñëpp bokk moom tabax ko dëgënu ndax ki faatu liñ ko suul la ci moom kon la ngay tabax àq jàmbur la bu fekkee it puukaréwu ki faatu moom ñii la toll yëngut ak nit ñi kon nañ ko tabaxal lu wuteeg nit ñi loolu boo daganul amma bu dee ngir xàmmee ko dong te fiñ ko suul suufama ak keneen néew fi loolu fu xaw maalikee daganal nañ bu pukkari wu taxut jëroo alali jàmbur jox ko jëroo àq jàmbur jox ko fu xaw yi neen dagan ci maalikee mbokk yi nit bu faatoo ba ñu suul ko ci bàmmeel bàmmeel ba xubus la fu la ci moom fii ak lu bokk ci néew baa ngi kenn sëñ te tasaruf baa bi leneen yàlla na yàlla doolu yërmaane Cheikh Mamadou Cheikh Sidil Muxtaar bi muy tëj armée li ñëpp xam nañ ne ñi ngi doon xotti war ma ay julli yu bari fekk nin faatu ñu daal dajale yaxee toj nangam daal di suul keneen bàmmeel waqfu la ci borom fii ak lu bokk ci ma mang fa wari su caa def leneen wari su caa def leneen bu seeyee ba jax tàkk nag mani safa suul keneen waaye nañu moytu dox ci kaw bàmmeel toog ci kaw bàmmeel moo tax armeel nos ko baax na lool léegi ñu def baqiya am nosu tegu ci yoon lu am solo yal dëgëral mbokk yi koy taxawee waaye yal yàlla dëgëral kilifa gi joxoon digal yi sa yal na ko yàlla sàmm doolu ko yërmande kon bàmmeel des ci toog te loolu bokk na ci li dimbali nit ñi wutal ko ay yoon ak jaaro bu kenn du joggi ci kaw bàmmeel bu ñuy yóbbu am néewin nag li gën mooy ñi koy robi nañ jiitu ndax dangay ngay tiinu ki ngay tiinu da nga koy jiitu fa nga jëm nañ jiitu dox moo gën su ngànt amul waaye mel ne lu so barab yu sori yi nag mën na saa dugg waaye nañ waaxu bu kenn yor ab néew dox ndànk bu kenn yor ab néew di yëkkati kàddu ak kàddu ga nga yëkkati lu mën a doon laa tutbaxul janaazatu bi sawtin wala naar neena ab néew kaddu du ko topp sawar du ko topp mbokk yi li ñu soxla bu nit faatoo ñëpp ne teg di xool néew di xalaat bi muy ànd ak yow tey ma nga ne ñu ci gàtt di ko sóoli yow kañ ngay dem loolu la ñu soxla ci nit waaye yëkkati ay kaddu di jàngat di zikkar ak yëpp dañ koy tere ñi ñaa ngi koy def rek nag waaye lu ñuy tere la waaye tekkeeral jooju kenn koy di xalaat sa bopp kañ la sa bis di ñëw waa ji fu mu jëm lëndëm gañ ko nar a yóbbu loolu lañ bëgg nit ñi di ci xalaat moo new desu deesu ko topp ak gan waaye deesu ko ak sawara ndax gan gu ñaaw la jigéen it buñ koy suul buñ dari rek daal di teg noonu nañ wut mbalaan tiimale ko ba nga xam ne ci dong ko gis ya ci bitti buñ seen dara ci moom loolu lépp ci wormaal ko tey la bokk ndax buñ koy teggi di dugal dara mën naa feeñ yaram wala mu feeñ mbalaan jàngaay la lo lépp lañ bëgg mu kon naam ñu ko tiim tiimale ko daal buñ dugalee ci pax mi defar ko noonu ñu ko baaxoo defar yemale ko def yépp defar bopp bi defar yépp teg ki takkuun yi teg labine yi nag ba kenn gisatu ko ñu door a nag suulaat pax bi buñ koy suul nag ku ne ca wet ga bëgg nañ nga jël sa ñaari loxo tibb suuf ba mu fees bu njëkk bi nga ne minha xalaqnaakum wa fiha nuidukum wa minha nuxrijukum taaratan uxra nit ñu jege jàpp ci jàpp leen ni mu lay suul ko bàmmeel it dañuy bëgg ñu jegeenal ko yëkkati ko tuuti mu nekk jigéen ñu xàmme ko ñaanal ko néew bi bismillah wa ala sunnati rasulillah ñaari néew it kenn du leen boole ci benn bàmmeel lu dul ngànt am ñu bari faatoondoo te xaju fi mën nañoo gas benn bàmmeel dugal ci ñëpp waaye ngànt koy waral mbokk yi mbokk mi faatu na suuli nañ ko wan nañ ko ginnaaw yonent bi salaam nee na ñu ko doon suul di dem keppet keppet seen dàll yi dana ko dégg dañ koy dekkal malaaka yi ñëw tàmbali koo laaj taxawaay bu raglu la mbokk yi kon foofu nañ ko ñaanal yàlla yërmaane ak njëgal lu ñu mën a wax la mu gën a aajowoo mooy yërmaane yàlla ak njëgalam nañ ko ko ñaanal ñaanal ko tasbiit bu ko bu ko malaaka yi laaj mu am lu mën a wax wax ju leer nañ ko ñaanal loolu moom lañ gën a soxla foofu ku xam ci moom lu baax it na ko seere ndax bu jullit faatu lépp luñ ko seeral ci lu baax yàlla da ciy sukkandiku àtte ko ci loolu waaye ku xam safaan noppi ku xam safaan noppi suturaal ko ndax yàlla suturaal jeexal na ci àdduna foofu muy bàmmeel di man awalu manzil min manazil al akhirah, waaye nag du kër gu mujj de yóbbu na bi ci kër gu mujj loolu njuumte lu rëy la ñi gëmut dekki ñoo koy wax bàmmeel mbokk yi du kër gu mujj ab jaarukaay la kër gu mujj mooy sawar mbaa ajaan moo tax ñuy wax naan fulaan nangam ila maswaahul axir ab julli waru ko wax luñ jëlee ci noon yi la ñi gëmut dekki ñoo naan al maswal axir maswal akhir bu bàmmeel de jenn jannatun aw naar mooy maswal axir waaye wàccuwaay bi jiitu ab jaam di wàcc ci àllaaxira mooy bàmmeel bu fa génnee yóbbu ko ci ëtt ba àtte ko bu ñu napp yóbbu ko fu ñu koy yóbbu léegi nag mbokki néew bi suuli nañ seen mbokk dellusiwaat lu leen war nañ muñ te xam ne yàllaa ko indi woon kenn ci ñoom ba muy ñëw kenn ci mbokk yi ku ko yëgoon yàlla mi ko jël yóbbul ko nañ sàkku teeba ñaan yàlla mu doon aw yiw Ibnu Salaam nee na amul benn jàmm boo xam ne musiba dana ko daal mu ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yàlla yàlla nag ma bindal teeba ci musiba mii wuutal ma lu ko gën lu du yàlla dana ko defal loolu kon ku faatule ñaanal yàlla waaye bu kenn def albukaa u kenn jooy yëkkati kàddu wuy sama nanga mag kenn wax loolu ronkon yuy génn nag sab xol di metti nekku ci sa loxo yonent yàlla muhammad keroog ba ibrahima doom génn àdduna dañ koo gis ronko ñuy génn mu ne al aynu tadma wal qalbu yahzan ay wala naqul illa ma yudi rabbana ba di mën naa taade xol bi mën naa am lu lu muy yëg waaye du mu wax mukk lu neexul yàlla kooku nag mooy royukaay bi kon ku mën a faatale ak ku mën a doon lu mu rëy rëy fi yow xamal dafay ñëwoon ab digam jeex lay dem sax ci àdduna mënta nekk amul njariñ jëru dikku ñaan bokk na ci njuumte yi nit ñi def di ñaanal kilifa naa ko yàlla na fi sax ba kañ amul njariñ bokk yi bokkul ci teggin ay diggante jàmm ak boromam ñaan ko loo xam ne du ko def mukk ci àdduna kenn nit bëgg fee sax ndax bu ñëpp demee loo fi dem yi baax a baax waaye euh, nit faatu la lu siiw fii ñépp di ko def nañ xam ni gënul de dem ubbi magasin ka faatu jël ceeb baag dib nanga togg ay ñam séddale nit ñi lu sunna de am na ci saxaaba yi ko waxoon ne ñun dajale nit ñi di leen jox ñam ci bisub dëj ci niyaaxatu lañ ko jàppe dañ koo jàpp ne li lislaam tere woon mooy nit faatu nga di ko yuuxu ko yuuxu ci la bokk liñ bëgg kay mooy ña dend ak moom dend ak ñoom ginnaaw seen mbokk faatu te lu ñoo togg nañ togg yit leen waaye li am fii nag mooy nit mooy faatule jël màng seen ba dajji ko togg ay ñam jox nit ñi li ci doy waar mbokk yi mooy ñam woo ngay joxe kooku moom bu fekkee ne ki faatu bàyyi na ay jirim yu ndaw ay doom yu ndaw yu majeure ko ku ko lekk lekk nga alali jirim ñam woowu ku ci lekk lekk nga alali jirim te alali jirim moom borom bi waxoon na ko innama yaakuluna zulman bàyyi xel loolu inna alladina yakuluuna amwaalata zulman innama yakuluuna fi butunihim naara kon yooyu nañ ko bàyyi xel su mënta ñàkk mënta ñàkk na ay mag dajale seen alal ñoom togg jox ni te boobaa la gën mooy nañ ci yéene sarax jox ko fuqaraaw yi ak masaa masaakiin yi waaye dajale ñoo xam ne aajowo wuñ ko di leen ko jox ni yaaxatu la gën a jege ci def lu baax xanaa gan bu jóge feneen mu leer ne mënta ñàkk lekk waaye ñi dëkk ci dëkk moom ñam nañ bàyyi xel ñam yooyu bokk yi jël mànga si mu faatu waa ji bi mu faatoo la noppee moom alal ji daanaka la des kon njaboot gi ko moom am na ci ñoo xam ne seen alal kenn ñu leen ko dugalal fu amul njariñ te foofu amul njariñ bu dee mag nag ñoo moom seen alal xëy na moo tax loolu moo tax bàyyi xel mbokk yi nit mënees na koo tënji ñetti fan góor mbokkam mën naa faatu moom ñetti fan yoo xam ne rek day yërëmtalu di xalaat néew waaye bu ñetti fan jeexee nag na dellu ci liggéey jigéen rek mooy teñ ji borom këram ñeenti weer ak fukki fan kon ñu bàyyi xel jaale it nag danañ ko def danañ ci ñëw waaye faatu na jébbal nañ ko boromam ñëw nañ ci kër gi bu bis boobu jàllee luñ gën a gaaw ci man koo miraas séddale àq yi ku ne jël àqam nañ ko def yeexal miraas dana waral nit lekk àq jàmbur ndax bu dee kër gu moomoon am njaboot yoo xam ne ñëpp dëkkuñ fa ña fa wéy dafa dëkk ñu ngi le jëfandikoo àqi seen moroom ndax ñoo ñëpp ñoo ci am tey war nañ koo séddale kenn ku ne xam li moom ngir kenn ba ñu topp àqi kenn kon miraas moom gaaw leeral mbiram lu mu gën a gaaw ñu miraas ko loolu bokk na ci yi nga xam ne war nañ ko bàyyi xel am néew léegi nag jullit yi moom lu leen war ci am néew nañ koy ñaanal nañ teew ci rob ba góor mën naa teew jigéen ju màggat te mel ni ku lislaam bëgg mën naa teew ci rob nañ teewe suul ba nañ dem jaale ji ay mbokkam ci biir ñetti fan yi nit bi mu faatu ba ñetti fan ku ne ci dëkk bi mën ngaa dem jaale ji jaare ci mooy lan fàttali ko li ko dal ànd ak moom tiis bi Abdou Salaam daana wax nit bu di faatu mu ne ko ah, yàlla lu mu jël moo ko moom lu joxe moo ko moom lépp lépp it na ngeen xam ne ci digga di diggam agsi rek ñun ñi ñëpp it dañuy xaar sunu dig ne ko muñal te sàkku tuyaaba yàlla na yàlla mag réyal sa sa tuyaaba yàlla na yàlla rafetal sa dëfal baat yu mel noonu mooy jaale xëy na ci suñu aada la bokk nag jël alal di dimbale ki faatu bu dee ngir yàlla kese tax baax dara nekk ndax aw yiw la bu dee ngir yàlla amaa bu dee lu ñuy fayalanteeg di ko lablante moom ngay xaar moom mbokkam faatu mu fay la ko subaa nag baaxut mbokk yi dañ bàyyi xel yooyu dañ bàyyi xel yooyu ku faatule néew doole ñu dajale alal dimbale ko dara nekku ci waaye nag yàlla tax kese subaa nag mën nañ ko nangu ci anam boobu bëgg nañ it ñu defar aw ñam bu nit faatulee ñoom togg waru waaye ñi dëkk ñoom ñoo war a togg yóbbul leen ñi dëkk ñoom ñoo war a togg yóbbul leen ba jaafar faatoo yoon bi islam daa waxoon ne defar leen aw ñam yóbbul kër jaafar ndax am na lu leen soxal ba tëlu ñoo togg bàyyi xel loolu mbokk yi bi ci desit nag waa ji faatu na jébbal nañ ko boromam seen relation dëggute dee ko fàttaliku ci ñaan di dem ci armée lee di ko siyaare di siyaare ñuy des yonentu noon na tere woon naa leen siyaare armeel waaye dee leen ko siyaare ji ndax day fàttali àllaaxira ndax waxoon naa ko fi dinaa ko waxaat armeel li tax mot a bàyyi xel nit ki nu mën a mel bu fa duggee rek bu def jullit bu génnee dana wutee na mel ndax loo mën a jaay rek am na koorom mu tëdd yor ko yoroon lu ko di xaar dig boo xam ne ak seegut te xamul lu yàlla def ci moom foofu ku génn loo baaxoon da ko yokk loo doon moytu ab safaan da nga ko yokk loo doon woyof da gën a woyof am na benn waykat boo xam ne jullit nit ki buy dox ci kaw suuf nee na doxal ndànk sa maam yi fi nekkoon ci aadama mën a gën anañu ñooy suuf si ngay jóge kon jógeel say maam ngay jóge doxal ndànk nit du rëy rëy mbokk yi nit du puukarewu ndax di jóge ci kaw maam moom di ko ndam solo li may mujj nag mooy yi nga xam ne màndargay mujj gu rafet la yàlla na ko yàlla defal bokk na ci ku faatu du muy faatu mu tudd ñaari baati seere yi ku ko faatuwaale insha allahu taala aljana jëm ndox yonent bi salaam moo ku laa ilaha illallah nekk kàddu gi mujj ci aw làmmiñam dana tàbbi aljana ku laa ilaha la nekk kàddu gi mujj ci aljana mu tàbbi aljana ku faatu ñu xool jëba mu ñaq nga xam ne aw ñaq la faatuwaale jëbi mandargam tabbi mandargam baax la yonent nee mawtul mu'min bi araqil jabin bàyyi xel loolu mbokk yi guddik aljuma ak bëccëgu aljuma ku ci faatu yonent nee na maa min muslimin yamuutu yowmal jumaati illa waqaahu llahu fitnatal qabr ku faatu bëccëgu aljuma mbaa guddik aljuma yàlla musal la ci fitnay bàmmeel yooyu ay julit buy def lu baax ba yàlla dogal ak faatam dajeeg loolu loolu aw yiw la woo xam ne màndarga mu rafet la naka noonu bu ñuy jihaat ku shahid faatu ci toolu xare ba di aar diine ba yàlla moom la ko àjjana nga jëm moom sax kooku deesu ko sang deesu ko jullee soxlawu dara ndax ko def yépp ngir bëgg mucc mucc na wala nga doon def ribaat di garde fenn ngir nooni fee tàbbi ñu rey la fa jàngal janna wala pest am ndax yàlla léegi mu wàcc ay natt ay jaaw pest yi am ay choléra ñoom seen ku ca faatu shahid nga la lay moo tax léeg-léeg mbokk yi autis am waaye fekk moo gën ci borom am na wéradi gu ñuy wax jàngoro ju ne ci biir xëy na suñu jamono tey mën nañ ko tudd ay cancer yu mel noonu sax na ne ku loolu rey shahid nga ku lab faatu ci ndox shahid la ku ab ab tabax màbb ci kaw mu faatu shahid la ku dee ci ak lakk shahid la jigéen ju am doom faatu shahida la yooyu mbokk yu metti la waaye yàlla yërmaaneem mu ëpp na loolu moo tax yooyu yëpp ku ci faatu rek mën naa metti ci njaboot gi de waaye na seen xel dal xam ne yàlla da ko bëggoon a yërëm moo tax mu faatu ci noonu naka noonu koo xam ne bu muy faatu ci jëf ju baax la faatoo taxawal di julli sëlmaloo ni ko sunu maam ji tedd ji sëriñ Afe Mbàkke dafa woon rahimahullahu taala wa bihamdu wax na ni ci taaya lu yàgg la nekk jarbaatam sëñ mu fàttore mu mujj àggale taaya ji sëlmal ndeke dem na loolu mbokk yi rafet la gaat nga ko rafet a ngi naka noonu jëf yu baax yépp tiim alxuraan di jàng ba des ca bu ñu woote woon aw yiw nga ci yëngu ba faatu ca yépp yu baax waaye loolu nag dañ bàyyi xel kon li ci des faatu ci anam goo xam ne ab terrain ab jul bu ci faatu ay mbokkam seen xëy wër dal yàlla mi wax ne bindu ma leen ngir fo yow ngay fo ba faatu ci terrain ba faatu mbir moo bañ a faatu nag mbokk yi bu ci nekk ndax al mawtu yati baxtata assalaamu aleykum wa rahmatullahi bismillahi rahmani rahim الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وامام المرسلين سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته mbokki جلدي yi ñu ngi leen di leen ndokkeel ci weer wu màgg yu ñu nekk ñi teew ci barab bu tedd bii di jumaa ji di topp waxtaan wi ak ñi nga xam ne nekkuñu ci biir jumaa ji tey topp waxtaan wi ci jumtukaay yi nga xam ne ci la waxtaan wi di jàll ñu di ko teewlu ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu te di leen ndokkeel day mel na tey jii nag mooy jataay bi jiitu ci jataay yi nga xam ne dañ koo jagleel laaj ak i tontu mu toll ci ñeenti jataay ñu fas yéene cee ànd ak Serigne Mbacke Abdourahman moom mi nga xam ne mii nes na ko ci jataay bi yàgg naa ànd ak mbooloo mi daayira muqaddamatul xidma ci liggéey bu am solo bi ci defe ay waxtaan ci defe ay jàngale ak ci tontu ay laaj yi nga xam ne bàyyikoo na ci mbokki jullit yi mu indi leen ci ay leeral kon dañ koy bàyyi mu nuyoo rek bu nuyoo ba noppi nag ñu door a tàmbali liggéey bi kon sëriñ bi bismillah aouzu billahi min alsheytaan arrajim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 كي دي لاج مو نه لاي سونو بروم واخ قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه كذلك نفصل الايات لقوم يعلمون مو نه دا فا بغا خم معنى بي لومي لاي جي لومي تك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 nga xam ne yàlla teral leen ñuy sutural seen awra laaj leen kan moo aramal yére yooyu ak it xéewal yi nga xam ne yu dagan lay yu laab ñu man koo jariñoo ñoom ñu jekki-jekki aramal ko ne leen ku ko aramal. laaju weddi la mana aramut yéen a ko bëgg a tere waaye kenn yàlla terewu ci biir laaj biit mu tontuwaat ko ne ko lox ne ni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 waaye bu yomal xiyaamee nag ku gëmul yàlla doon ko topp du mos ci xewul yàlla yi taraanga yàlla yi du ci mos wallahu taala alam jërëjëf sëriñ bi kii moom day laaj mu ne ndax wér na ne ab néew day ñaanal ku koy ñaanal waaw wér na wér na ne de nit bu faatoo ba ñu suul ko ñi dox ñi ko doon suul bu ñuy wëlbatiku di ñibbi seen dàll yi keppat keppati dana ko dégg loolu yëpp sax na ci xadis sëriñ bi jàngal nañu ko ca tazawdu shubaan innahu la yasmahu xafxani alihim idan sarafu loolu yonte islam moo ko wax ci xadis boo xam ne mi ngi ci muslim ca ma xatla badar ba mu leen ba di wax ak ñoom di tudd ay tur di tudd ay tur ci waa badar ay ñoom abu abu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 ñu ne gaa yi mu tooñoon kii kat amut leen fayee li fi des mooy kaay leen wàññi seen i ñaawteef jël wàññi seen i bàkkaar ñu wàññi seen i bàkkaar ñoom nga xam dafa dem yóbbaale yi wu bari waaye fa mu mujj mooy fees ki bàkkaar yóbbu ko sawara wala loolu li koy waral mooy tooñ sa morom jàmm ci àdduna moo tax noonu nag ku ci ameel sa morom ak tooñ na nga ko lijjanti balaa faat kon tooñante moom lu mat a moytu la moom la sëñ bi jàngale ca. وهكذا رد المظالم جميع يعد من شروط عند المطيع لأنه فرض فمن تركه مخففا فقد عصى ملكه كون توان دي الله دي بالي موي لين كو توي موم يالا واي دي دوخ سا ديغنتك سا موروم جام دا تي مانو تايت يوم القيامه صاح نك يي دوخ سي ديغنت جام يالا بوكو نك لي نيك لي جينتي موي دراري بوما سي لورني سي دراتام غاني كو فن خاني كو ولا نغ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 bu mu doon lu sobe sobe jaay ko dafa xaram benn bu mu doon lu ab yax ñëw di ko tere sàngara na ñaari daje na ci sobe la ab yax saxar na ne dafa arab kenn du ko jaay kon wari su ko jaay ko dafa arab ak lu mën a doon yonentu ay sa waxoon nan inna laa xarama baya al xamri wal maytati wal xinsiir kon ab yax root na ba noppi sobe la même bu yax bi rotul te nekk sobee sobe jaay ko dëgëru kon jaay sàngara ci genn anam bul wax ne ñi ma koy jaay ay yéefar lañ wala duñ ay jullit jaay sàngara moo dëgganut boo ko jaayee ba mu am njëgg wee nga yor lekk ko dëgganut ci yow ndax yonent bi nee na ki araamal naan gi moo araamal njëg gi bi ci des it ñu bàyyi xel ne fukki nit mbaa lu ko ëpp yàlla rëbb na leen ci sàngara yonent bi moo wax ne yàlla rëbb na sàngara ci boppam rëbb na ki koy képp ku koy naan rëbb na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 desu ko ngoro du tukki yit di fanaan àll loolu moo tudd iddaw bu fekkee borom këram faatu da cay boole ñaawlu nga xam du du sañ a taaru bàyyi ko nag mooy lan mooy ci biir diir boobu mu dem sëyi fi ñu maye ko fi suba dagg na idda ja ne bu toogoon këram ndax lu bari du bàyyi xel mooy kii iddawu bu toogee këram ne ci yàlla kuñ ko waxut xam ngi daw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 man nañ ko fasaat mayaat ko bu dee passé batta ko sañ kon man nañ koo may ki ko yoroon bu fekkee passé mu nangu mu nangu lool la waaye keneen nag deesu ko may moom kuñ ko may bu baaxut te bu ngeen jaxasoo dootu tukki kon mën nañu ci yooyu rek la la mën a la mën a daggee génn di liggéey ko liñ ko tare muy sàmmonteeg ab julit la bu mu fanaan furul këram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 waaye asaka ñi war dëgg dëgg mooy ñi wawmal ñi te wawmal nag koom la koom la tudd mooy alal ju bari waaye daal juróom-ñett fukk gramme ak juróom mooy nisaab sëñ Cheikh kii day laaj mu ne laaye ji sunu borom di wax la bëgg ñu leeral ko ko mu ne yàlla dafa wax ne wallaati taxaafuuna nushuuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaaja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 waaree ci jiitu nag ndax ku gëm yàlla boo ko waaree mu waaru xañ ko lenn ci àqam yi moom moo ci tege wan ko ak ñagas te topp ci loolu it jàpp naa mën naa bàyyi xel fii nag ñëpp ci moom biñ mujjee ñaare moom lay njëkki buñ meree moom biñ biñ war a mujjee moom lay njëkki loolu nag du saafara lu bari waaw kay euh, kii day laaj mu ne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 al kufru wal fisq wa zulm melokaani ñii atte woo atte wuy safaanook atte yàlla kon du ne saa buñ attee ci tribunal boo xam ne du lislaam rek atte bu maay saa buñ fa atte atte bu safaanook bu lislaam euh, kii day laaj mu ne koo xam ne dafa sëngiwu ba noppi njaaloo waaye jotuñ ko atteb atteb sharia mu ne ndax kon su baayam faatoo moom day doon baayam wala waru ko doon ndax daa mel dañu jàpp ni kon waroon nañ ko rey daal moo waroon njëkk faatu baayam waaye yàlla dogal na njëkkatu faatu baayam <laughs> maanaa ku sëngewu mooy njaaloo dañ ko war a rey sëngewu mooy mas a denc képp ku mas a denc soxna ba jaxasoo moom boo njaaloo te dañ rey ci léegi nag ko xamne lol dal nako fam nek àtte sharia doxu fa bu toubé tuub sel nañ jàpp batay li yàlla waxoon ne inna la yaghfiru la yaghfiru ay yusuf wa yaghfiru ma dun zalik ma dun zalik njaalo ci bakkar yu mag yi la bokk waaye ci yàlla mën a ci la bok boo toubé tuubee sel yàlla jégal la ko parce ndax amna hadith xadis donte ay wax am na ci hadith bi ñu islam waxoon ne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 dafa jote boroom këram dem seen kër lànk ne du del siwaat ndax am na ab diir boo xam dañ naan diir bi bu ko toogee te ñëwut dañ koy jàpp dañ ko fase lu mu fa yàgg-yàgg te boroom këram néew ko fase naa la demul tribunal ba tribunal woo boroom kër ba atte ne fase na ko ci buum la nekk maanaam pay mu yàgg du soppali ku nekk am passé la ba ko lu mu fa yàgg-yàgg nag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 ne leen yéen dee leen jaay ñi ci des ñu xañ leen ko suba moom ku fexe ba ba génn ca du wàññi dara ndax ak tooñ la nga fexe ba mucc waaye bu leeree ne lii nii baaxut ci réew mi ñëpp dañ ko war a kon ku ko def def nga bàkkaar ndax def nga lu ñu tere ndax da ngaa lor sa mbokk sa mbokk yi nga dëkk sa mbokk sa mbokki nit moo tax yooyu mbar ko bàyyi xel baax a baax mu tam faaw ñu xajale li ñuy tere mu dugg fi ngir maslaxatu nit ñi ak li ñuy tere ngir dugg fi ngir dimbale ñenn ñaar yooyu dañ koy xàmmee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 loolu loolu nag moo mat a lijjanti di liggéeyloo nit daa war a leer benn mu ne sama baay dama la koy may ndax ni mu waxee day mel ne kuy ñaxtu la benn dama lay dama lay waxtu yi mu féex damay ñëw di la jaayal ngir yàlla di la ko may loolu xamis na ko jàppale sa baay wala mu jël la ab ajiir di la liggéeyloo di la fay bu la jëlee ajiir nag dalaa war a wax ñaata lay fay maanaam fii bokk na ci aada yi nit ñi def kaay liggéey bu kiyee rek mu mosal dara day tere ajir daa bokk ci ay chartam ñu xam ñaata lañ koy fay ak kañ lañ koy fay loolu mënta ñàkk ngir mu wér kon kuy liggéeyloo nit na ko wax ko dama lay fay nangam wala fukki fan nangam wala bis bu ne nangam bu ko jaralee ñu tàmm wala nga ñu ne ko ah, lii kat dama am waxtu dama koy sama woy jur ma ñëw dala bungti ci liggéey bu mu ci mën doon ci ñaar jël ci alal ji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 du fanaan fudul këram kon bépp tukki bu sori boo xam ne day tax mu fanaan la du ko sañati jërëjëf sëriñ bi kii day laaj mu ne ndax dagan na ci jullit bu góor muy takk montre boo xam ne nii dañ koo defere or wala xaalis wala jamaa wala yu mel noonu waaw lu mel ne or de moom li ci lislaam santaane woon moom yëpp islaam daa waxoon ne da koo araamal ci góoru xeet wi Jigen ñi sañ nañ koo jëfandikoo ci ay takkaay waaye dafa araam ci góor ñi takkaay lenn lañ ci maye lenn mooy jaarob xaalis benn jaar lay doon it nag boo du bari bu ëpp juróom benn gram bu ëpp juróom benn gram benn jaar lañ may góor mu takku ci takkaay jaarob weñ gu ñuul jaarob përëm yépp dañ koy tare or di tere xaalis bu ëppee yooyu bu dee ñaar dañ koy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 dañ koy tere dañu bëgg nit ki daal mel mel ku lay bëgg na la bëggaale li mel nii waaye saa boo nit ki nu bokkut ak nga mel ba tax mu bëgg la bis bu la na nit ku ñëw di bëgg wax ko ñi nga am muy ñii mu leer bu bëggee jël bëggul bàyyi ndax wan ko lu tax mu bëgg ngeen dem tuuti loolu yàqu kon julit du yu mel ndax la julit du la ab julit du lëntal lépp lay jëflan daawal leer nañ ni tax ngoro ji ak di ngor ñu leen di ngoro ñuy soppi seen melokaan sax ngir bëgg ñu liñ bëgg lépp wóor gis nit koo xam day ngoro nit saa ko ni bu fi ñëw mu waaj a ba nga xam ne bis buñ ko mayee mu gis ko kam foog kam doon gis ak kam kii kiñ ko may bokkul loolu mën naa tas yaakaar mën naa indi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 waaw ku ànd ak bu iliman dee sujud, faw da sujud. sujoot donte sax fekke woo fekke woo njuumte la masal iliman mën naa juum ci rakkaab bu njëkk yow fekke woo ku nga ñëw ci rakkaab ñaareel daf luy tax xabla salaam war ko buy salam xabla salaam da nga ànd ak moom buy sujoot baada salaam it da ngay àggale yow boo sëlmalee fay baada salaam boobu kon ku ànd ak bu iliman juumee jàppal ne juumu nga lépp lu mu def ngir di ko yëwénal njuumteem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 ak soxnam kep mu ne ko ndax soxna ci day doon ci asabal wala det soxna amul fu muy doon ci asaba liñ jàng ci téré amul fu muy doon ci asaba soxna mom ab cër la am ci mirage ben ñu xaj alal di ñent xaj jox ko ben bi wala ñu xaj alal di juroom ñet xaj jox ko ben bi bu dé mom kenn moo mom bu dé mok ñeneen ñu bok bu doon nit ku faatu baye ndeyam ak bayam ak soxna soxna si.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 Comme ku mel non dañ ne fu ko xasse wax day mel da ko mu tok ba mu dem lu pas ni moom bi mu waxee baye sa bop ci da ko wax ba nopi djublu ci la ndax fase la mom ci ci ci ci ci ci sariya ci Malik bo ne won soxna si may ma ndox ma fas ci sa xol ne loolu fase la fase lay do dañuy wax ñu bepp bepp bo ci la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 jàng alxuraan ko mokkal mën nañu dañ ci barab jàng nañ fekk jàng lépp waaye yéefar lañ dañoo sàggat rek mën nañu ñëw ci barab di làqutu jiite la julli dafa la julli def lépp saa boo yëgee ne ke la jiite woon bi sàngam yéefar la woon julli googu baa ma ko war na ñaareel ba na doon góor na doon góor gu ñu xam jigéen du jiite ci bu Malik du jiite góor du jiitew jigéen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 yooyu la ñu sart ci ilimaan am nag yeneen yoo xam ne danañ ko dañ koy sart ci ilimaani ratib kuy sax ku jiite nit ñi waaye bu fekkoon ne nag da ngeen a daje woon nii rek ci benn jotaay julli jot moom bari na ci yoo xam mën nañ moom ku man ponk yi rek bu la jiitee ba xam mhm. kii day laaj mu ne lan mooy àtte koo xam ne dafa taxawal jullik suba mu fàttaliku ne moom julliwul ñaar ay fajar waaw bu fekkee daa ne ci jàkka ji de ñu xas taxawal julli suba te julli fajar da koy bàyyi ànd ak nyaraka julli ñaar rakka suba bàyyi ba mu naaj bu jant fenkee ba mat fanweeri minute wala lu ko jege mu fay ñaar fajar bu fekkoon nag daa ne ci jàkka ji bitti jàkka ji di di ñëw dégg ñuy taxawal julli te xam na ni ilimaan ji day jàng saar yu gudd naa taxaw ci biti naa fi la ñaar rakkay fajar ñëw ci jàkka ji te rakka bu njëkk du ko raw kon sañ naa taxaw ca bitti julli ñaar rakkay fajar doo dugg ci jàkk ji waaye bu ko leeree ne bala koo daf ilimaan raw ko rakka bu njëkk nag sañatu ko day ñëw dugg ci julli gi bu naajee mu fay loolu lañ ko sant kii moom day laaj mu ne koo day ndax bu ba weer wi dee wala xam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 waaw li ñuy wax tahaaratul xabas mooy sa yére ak sa yaram ak barab bi nga julli taq sobe charte la ci wéru julli waaye maa zikri wal qudrati bu fekkee ne yow fàtte woo ko te man nga koo dindi war na la nga dindi ko boo ko defu julli ga du baax waaye dafa mel ne moom da ko fàtte wala yëgutoon ne fi sobe la ba julli ba sëlmal kon julli ga baax na waaye nag sopp nañ mu baamu ko bu waxtu jeexul julli ga baax na moom waaye sopp nañ baamu ko mu dem benn barab wala mu laabal booba julliwaat ko bu fekkee waxtu jeexul bu fekkoon takkusaan la fii ak istiraat amut sañ na koo sopp nañ mu julliwaat ko bu doon timis wala géey fii ak fajar jotul mën na ko baabu waaye julli baax na moom ginnaaw da ko fàtte ba sëlmal wala xamu ko woon mhm. mbokk mi day laaj mu ne koo xam ni day dund ci dëkk boo xam ne jant bi dana am ñetti fan wala ñaar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 illa wada'i'un wala budda yawman an turaddal wada'i'un dénkaanul yàlla la da nga ko ko delloo yàlla bu ëllëgee te moom la ko jox lu set wi ci la kon fexeel ba yow fitra boobee nga suuxat ko ba mu buy delloo ci boromam doon ko jat nga am ndam am tuyaaba moom it ndam am bu dul loolu lu sikk ci moom te fekk yaa ko waroon taxaw taxawoo ko boo sa borom dan la ko laaj euh,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 mën na koo jëmee ci jaamu yàlla gi nga xam ne da ko daan kay jiite mu ñëw te jàppul kooku moom wari su koo jiital ci dara comme jiite yi tëgg li baaxul waaye am na ñoo xam ne seenu fisk ci yeneen la ma ngay naan ñol ma ngay ruur tooli jàmbur waaye nag bu dee julli moom dana jàpp dana jàng li war a jàng boobaa wari su ko def ilimaan ndax mënut royukaay waaye nag bu la jiite woon a julli julli ko baax na baa mu julli ko du la war a yow mhm. laaj bu mu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 waaye saa bu desee lu am solo loo xam ne boo ko joxoon boroom xay na man koo jariñoo donte mën na caa def ak kaala sañoo koo jël te la sàkku si ñaa ndax alala ma yun na noo yi nga xam ne liggéey bi moo ko laaj faw bala ngaa dagg mu mi morceau yi nga dagg bu sànni moom des ay moom sañ nga koo dajale ndax am mbalit la booy set loolu ñaar yooyu ma na xàmmee des wu mag dañ koy bala nga koo jariñoo laaj ñaan ko borom bu dee yi nga xam ne kiiwut nag sañ na ca dajale yu bari defar ci boobu subaa moo ko moom eh, mbokk mi day laaj mu ne koo xam ne nii koor dafa teru nee ñett fan yu njëkk yi wóoru ko te amul benn ngànt moom dafa wóorul rek mu ne ndax kooku kafaara war na ko wala déet waaw xam nga ramadan bu képp war na la benn benn lay bu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 daayira muqaddamatul xidma ci leeral yu am solo yi mu indi ci laaj yi nga xam ne ñëw na fi kon bala ñu yëkkati jataay bi daayira muqaddamatul xidma mi ngi yëgal mbooleem imam yi nekk ci Touba ak lu ko wër ak ñi nga xam sax dañuy def ay bayaan ci jumaa yi ne suba ak noddukat yi ne suba incha allah bu ñu julli tisbaar ba noppi fii ci jumaa ji dina am ak tàggat gu ñuy defal imaam yooyu ak noddukat yi ak ñiy waxtaan ci jumaa yi laata ñu julli ajuma kon suba buñ jullee tisbaar ba noppi lañ ko def fii jumaa ji daayira bi di sàkku ci mbooleem ñi loolu yitteel lépp ñu teew ndax njariñul kese la ni ki noonu ba tey it képp koo xam ne am na laaj bu mu bëgg a jàllale bu jëm ci fatawaa yi mën naa mën na ko yónnee ci numéro yi 77 703 63 54 wala 77 072 94 76 wala 77 765 58 73 yooyu ku ci yónni say laaj dina ak si jotaay bi bu ko defee borom xam bu ñu fi dalal danañ ko mën a tontu kon ñu ngi santaat ñëpp suba incha allahu kon ñu fàttali ne ñu ngi war a waxtaane carte mooy lan ak yan lor la am ak yenn ci xeet yi nga xam ne doo sañ ñu ko def tam dugg ci moom moo koy kon ñu ngi koy bàyyi loo xel ñëpp kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñu teewoon ci jumaa ji ak doon topp waxtaan yi ci bitti ci GMT bi ak mboolem ñi nga xam ne ñoo jokkoo ak télé Grand Mosquée bi ci yeneen télé yi ak yeneen ñu ngi leen di sant di leen والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته